man suis tuddu adjoint au maire en charge des planifications et des ressources humaines de la commune de Ziguinchor. Euh, en tout cas rouge na si mairie bi ay euh, liggéeykat euh, yuuxu nañu di exiger ngeen fay une augmentation de salaire bu état du Sénégal décidé. waaw augmentation des salaires c'est ñom mënuñ len ko fay ñun mënuñ len ko fay parce que ñun promettre ñu ko. L'État état bu leen ko promettre dugalu ko ñun en contrepartie nos caisse pour ne l'augmentation augmentation bu personnel dont réclame réclamer la. ñoom dañoo négocier ak le président Macky Sall négocier ak le ministre négocier avec l'association des maires mu ne dit dem leen mairie bi dina faire. fay. léegi ba mu wax ne dem mairie bi dina leen fay ñoom fa lañ parce que au niveau de la négociation ñun mairie bi newuñu fa avons amuñu woon représentant te mairie bi sax mënuñ ko fay mënuñ ko supporter.

dañoo bëgg ñu wàññi personnel bi wàññi personnel bi mooy luñ doon am si personnel ñu euh, wàññi effectif bi bu ñu effectif xaalis boobu ñu jël ko dolli leen ko ñoom beneen bi mooy ñu génnale personnel temporaire yu fi nekk di ñu jàppale di liggéey loolu du amati ñoom ñu jël leen ñoom rek ñu nekk fi beneen bi mooy ñu jël personnel contractuel yu fi nekk ñu jël leen dàq leen dàq ñoom it seen biir ñiy grève ñu wàññi leen jël un personnel réduit pour satisfaire leur demande trois méthodes de baaxul trois méthodes de baaxul parce que buñ donne am satisfaction bi masse salariale est toll aux environs de 800 millions et quelques mënuñu ko supporter mënuñu ko supporter donc soit une augmentation de 223 millions et quelques donc cela veut dire on aura une augmentation mensuelle de 18 millions et bu 55% de la masse salariale a été augmentée ce mairie bi ko supporter parce que les finances de la mairie sont des finances très fragiles. La mairie ne peut pas faire face avec. Et au, niveau, et au moment de la négociation, nous connaissons la mairie, moment validé la négociation. Nous connaissons la mairie, nous promettrons. Nous sommes politiques. Et action politique, nous Parce qu'on a 555 communes au niveau national. Nous avons une commune qui est La moto, c'est un choix qui est La moto, c'est avons une commune qui est nous avons ñu préavis déposé au niveau national national avec l'intersyndicale déposé ko dafa valable jusqu'au mois de juin non l'intersyndicale grève bu doon l'intersyndicale nous ñoo protéger euh, euh, verrouiller ko au niveau national nous ñu dem grève mais nous avons ba ci kanam ñun ñu confiance Nous leen jàppoon leen ni comme ay frères et sœurs Japon leen comme ay parents mais dem à un certain moment dañu trahir il faussé de compagnie parce que si fi avez monsieur le maire Ousmane Sonko ñëwee ba légui ni poste yëpp yim fi fekk avec leur responsabilité Ce qui moom c'est la compétence si quelqu'un est compétent il n'a qu'à continuer à rester et travailler carrément mais un problème national duñ ko jël bu un problème local sur ça c'est des actions politiques dañuy politique action politique réponse politique mais amul lenn loo xamante la bloqué nañ ko ci sun système état civil bi mu ngi dox usager bi yëpp ñu ngi ñëw di ut ay extrait ñu leen koy jox di ut ay résidence ñu leen koy jox di ut ay acte de mariage ñu leen koy jox y a un service qui est là qui travaille beneen acte bi mooy le service des recettes de la mairie mu ngi dox tous les services nettoiement mu ngi dox bii c'est un petit groupe boo xamante ne ñoo toog fii pour faire leur petit show rek di wane ne non non ils ne sont pas du tout contents di masquer benn politique bu ñu bëgg a def envers la mairie te boobu du dox duñ ko bàyyi mu de